yéesu dafa nettali woon benn histoire dafa amoon nit koo xamante baayam dafa amoon alal lool benn bés nag mu ñëw ne baay baay jox ma ci sama ndono li li ma war a moom baay bi nag werantewula ak moom dal di jox ko ndonom ci ay fan yu néew xele ba daldi jóg ak alalam yépp dam daldi dem fu sori te daldi dem caaxaane fa alalam ba mu jeex ba mu mujj sax di tumurank ba nar sàmmaani wante mu xoolaat boppam ne lan laa war a def xaaral ma dellu sama kër baay te dinaa ñaan sama baay mu baal ma te dootuma yelloo sax nekk doomam noonu mu daldi jël yoon aw ba di dem bu mu demee ba sorandi kër ga baay ba séen ko daldi daw gàttandu ko ndax baay bi daf ko bëggoon sopp ko lool Jéesu nee na noonu la demee diggante nit ki ak yàlla suñu bakkaaree nañu tuub suñu bakkaar te bu ñu tuubee yàlla dinañu baal ndax daf ñu sopp te def ñu bëgg lool